pension daa tuuti loolu la. réalité mooy. Mhm. suñu ressources yi. Mhm. Mhm. suñu besoins yi ils sont illimités. ku ko am ci kër problème bu mag ngay am. ku ko am ci réew aussi problème bu mag ngay am. moo tax ñu ne la ci réew ñaari mbo ñaari possibilité nga am pour am xaalis ñaar. lu ñu tuddee source de financement interne. ak externe. interne mooy comme gars yi li ñuy def nii. fay fay fay xaw a fay impôts yi ngay gis ni ay taxes euh, pénalité redevabilité ay contravention soo ko fayul réew mi du dox de. Mm-hmm. parce que ñoom amuñu fenn fu ñu mënee jëyee xaalis état yorul entreprise état lu mu yoree ay services publics ñoo liggéey boobu mooy tax nga am nga mën a am possibilité ñu fay la taxe. wala li ngay liggéeyloo ñu ne papier bi après fayal droit bi après timbre nga dajale ko mu doon dara après nga fayee ko yenn fonctionnaire yi bu matul nga dem lijjanti ko léegi nag ñu ne la source interne yi bokk na ci impôt ñu fay impôt. ñu fay taxe léegi nag gars yi bu ñu fayee taxe léegi fooy jëlee xaalis da ngay dem lebi léegi boo demee lebi mais leb boobu noonu ñu ñenn ñi bu ñu lay lewal. dañu lay imposer ñoom li ngay li ngay def ci xaalis boobu. Mhm. au contraire boo lebee man su ma lebee cent saa cinq mille. Uh-huh. moom mun na ma wax ne soo may fay six mille may fay mais warul ma wax ne cinq mille bii dama koy jëndee mburu chaque jour. Uh-huh. Euh, chaque jour cent franc ba mu jeex sinon du mën lebal. kooku su boobaa saa moom may dicté sama politique économique alors que réew mu mooy fixeel boppam nan la jàppee ne. économie yoom nan lay demee. Uh-huh. États-Unis du banque mondiale moo koy fixé nu muy doxalee. du FMI moo koy fixel parce que FMI sax amul benn ndogal ci loolu ñun kay lay FMI di jël ñi nga xamante ne yoruñu dara économie bi dëgërul. dañuy góorgóorlu mu ñuy fixé dañuy lebal. mu ne la boobu soo gi biggee ma lebal la deux cent cinquante milliards dangay ngay réformer si sa doxalin da ngay bàyyi soo doxalin bi te si FMI bi lu mu wax Sénégal fay na su ko defee xam nga da ngay wax ma jàmbal lu mu wax. mais FMI lu mu wax. si rapport bi su ko état defee mooy Sénégal lu ñu doon jund ci pain bi sa day arrière. maanaam mburu bi bu ñu wàññi xaw ma day day yokk parce que FMI bi daf ko daf ne na ngeen suspendre les subventions sur les sur l' énergie suspendre subvention sur énergie mooy lépp luy courant maanaam lépp luy carburant mhm. énergie mhm. mooy euh, gaz mhm. mooy euh, gasoil mooy essence mooy ngeen teg gi ak Senelec ngeen teg gi li ngeen li ngeen subventionné léegi boo subventionné boo teggee li nga subventionné si Senelec mooy facture courant day yokk. bu baax sax. kan moo ko dul yëg ci Sénégal. soo ko soo ko si soo dindee loolu. ki nga xamante ne mooy consommer këram fii fii li Dakar bii. Mhm. le patron bu dee day fay cent mille day dépassé cent mille. kon yëg na ko boo dindee subvention boobu aussi nga dem yore sa oto saa mii tey lu muy def mën nga def 3000 pour toute la journée su boobaa day yokk parce que dina la léegi litre bi jaratul 1000 francs léegi 1200 lay jaar. su boobaa parce que dañ laa subventionné moo tax mu nekk 1000 francs te bu ñu ko teggee yow day weesu état da lay delloo da ngay li nga li état engagé woon pour yokkal la ci fayal la ci muy cent wala 200. cent mhm. lay état danaan la ah fayatal sa bopp ñun mënuñ ko. mënuñ ko bi duñ la wax directement FMI moo la ko mais FMI moo moo ñu ne mënuñ ko mais FMI moo wax ne exactement da ngeen di dindi les subventions yi ngeen def sur l' énergie alors loolu soo ko defee ñëpp ko yëgandoo dafay nekk lu ñu tuddee. ay subventions euh, généralisées au début euh, dañ ko waxoon 2025 la ñu waxoon ne la ñuy la na ngeen dugg ci subvention ciblée mooy du ñëpp ngeen di laal bu dee Senelec dafay am ay tranches ñu ne la euh, ñii wàññi bi ñii la concerné et cetera léegi loolu bu ñu ko dindee mooy nekk subvention généralisée wala ñëpp ay tolloo ku nekk. Mm-hmm. loo ci def rek moom ngay fay. Mhm. maanaam boo amee di utiliser euh, nga am sa kër am frigo am lii man ma am ventilo loolu exactement ñu ñëpp ay globalisé mais bokkul am na ñu ne tranche bi tranche un tranche deux. Mhm. léegi bu buñ dindee loolu da ngay gis ne dund bi dafay gën a cher dafay gën a compliquer et donc li nga su boobaa FMI li muy wax ay six point 1 mais day gën a compliqué parce que su boobaa Sénégalais dafay sentir ne. Mhm. dëkk bi doxul wala métti na parce que dépense bi day cher boo waree dem Kaolack. Euh, bu dee yokk na essence boo waroon fay 1000 francs dañ koy yokk soo waroon également dem ci machine wol bi nga doon fay 100 francs pour ñu walal la mhm. borom machine bi dalay facturer parce que moom dafay fay gasoil mhm. parce que yoom dañ koo jaay prix gasoil 1000 francs exemple mais mhm. pour mu amaat 100 francs boobu mu teg ci moom dañ la dalay facturer au moins ci 25 cinq 50 francs c'est-à-dire dans tous les cas waaw day laal lépp moo tax je pense état bu Sénégal bi dina trouver solution pour mën a continuer parce que bu ñu ko teggloo subvention yooyu ah dina métti rek. moom xaw ma ndax ma jambal jaay xam nga man lan loolu foofu lay waxee wala. waaye xam naa daal bu ñu teggee subvention yi amul benn sénégalais boo ko dul yëpp amul. parce que sénégalais bu fi tukkiwul. Mhm. am nga courant sénégalais bu amul courant. yaa ngi yore sa oto. sénégalais bu yorul sa oto yaa ngi utiliser loo xamante ni. Mhm. machine moo koy taal wala courant te dans tous les cas lépp luy machine di taal wala courant ngay déplacé. Mhm. day laal lu ñu tuddee énergie. voilà Sawala bu fekkee ne continué nañ ci lancé bi est-ce que tamit coono gi nga xamante ne nii ñu ngi ko doon wax ci Sénégal bu gën a yokk wala euh, ñi nga xamante ne nii ñoo di population bi dañuy continuer di si biir ba kañ. non mënul continuer parce que xam nga suñu bi bu jotee budget xool farata ji def ko ci farata ji xam nga li ñu indi yëpp mooy ma ñëw ci li Madiambal wax ba pare xam nga tey premier ministre mhm. bi ñu ko fi tegee régime bi mhm. président daf ko yokkal ay prérogatives léegi man buñ ne premier ministre dañ faa dépassé primature dañ faa dépassé douze milliards mhm. mënoon nañu wax fi ñu ko dépensé xam nga mënoon nga dépassé vingt milliards te fi nga ko dépensé fa nga ko war a def. Mhm. boobaa loolu du problème mais dangaa ngaa dépensé douze milliards rek yam ci. Mhm. moo tax euh, daanaka waxu fi dara <laughs> parce que problème mooy xaalis bi moom mi ngi fi pour dépenser ko moo tax mu nekk fi léegi nag est-ce que fi ko war a def def nañ ko fa loolu mooy mooy question kon li mu li mu andi du du question. Mhm. comme li Thioune wax xam nga effet bi moom. moom boo nangoo mu xoj la moom loolu mooy wax ci. te feeg yaa ngi def liñ bëgg nu mu leen neexee. mën nañ la kii ñoom nag dañuy dugg ci sa li ñu waxoon ak wàdd te wàdd ne leen wax leen lijjanti leen nu ma leen fayee mais pas ni may def ba fay leen loolu seen yoon nekku ci. Mm-hmm. loolu mooy dëgg loolu nag ku am fulaa koy def ku juboo koy def. Mm-hmm. mais daal gis nga faatu. alal ji alalu réew mi la dañ ko dagg ci nit ñi nañ ko def ci farata wala def ci luy jur. Mm-hmm. mais lépp tabaxee dara ba pare loolu ngoor nga wëlbatiwaat di lépp di ko dundal. comme tey lu mel ni teer lu ma koy waxee. nga mm. dem leb suñu suñu alal daanaka dépensé ci lu ëpp 1000 milliards di wëy mm. ba noppi pour entretenir ko maanaam di daw di perte maanaam li ñuy wax mooy root si woo tuur paan mm. pertement bon la loolu moo ñu moo ñu kii cinquante quatre mille milliards. su fekkoon ne dañ ko def ci mbay mi def ko ci loo xam ne dafay dafay jur def ko ci am euh, créer ay conditions yoo xam ne Sénégal dafay am ay usines. yoo xam ne nit usines yooyu dañuy jur am koom mu koy jur di duggaat ci état bi yu bari maanaam tawuñu à perte bu boobaa fii ñu nekk duñ fi nekk ku ci nekk da ngay koy yëg nit ñi dañuy am xëy dañuy am liggéey loolu mooy dëgg. léegi nag li fi amoon nga xam ne pasar pasaree la lépp tabaxee euh, mbir ba pare wëlbiku di di di di lebaat di ko entretenir maanaam mu nekk sous perfusion comme loolu ñuy wax loolu moo ñu yóbbu fii. Mm-hmm. loolu nag suñ ci bëggee jógee mooy li ma wax sànq teg liggéey bu siiwal fi mu war a dem ñu def ko fa mm-hmm. voilà mi ngi noonu dañuy ñëw sax maanaam jeexal ci li nga xamante ne ni moo di li xew ca diwaanu Mali di ay uh, attaques yi nga xamante ne ni nemmeeku nañ ko fa démb ba tey uh, ñu gis uh, le député Guy Marius Sagna sax moom itamit yëkkat ci ay kàddu jàpp ne sax peut-être am na taxawaay boo xamante ne ni CEDEAO wax na ko ci mën a taxaw tey jii ni man démarré ak cuun li nga xamante ne ni d'abord xew na Mali est tey jii nii mën nañ ci joxoñ baaraamu tuuma wala sax tekk tekkaaral gi nga xamante ne nii euh, CEDEAO euh, peut-être euh, def na ko ci est-ce que am na luñ ko ci mën a reprocher bu fekkee ne Mali tey yooyu ñoom dañoo décidé woon génn ci ñoom. Hmm. waaw ci puisque dañoo nekk ci Mali. xam nga Claude Pivi xam nga ko. Hmm. Claude Pivi. Hmm. dañu dégg xam nga Claude Claude Pivi non. ok Claude Pivi Guinée la dëkk. dañ ko tëjoon ci événement.